ñu àndandoo ñun ñëpp dem déglu lañuy wax ndax ñu man koo xam ba bu ñu demee buñ ñu laajee lu xew ak lu ñu wax nga bañ a wax ni ne man de lañ wax ca mbooloo ma xaw ci dara. kon dafa mel ni. lala la yëkkati woon. du li nga xam ne moom lañ war a wax. dafa mel ni kon ku def loolu leneen la la yëkkati. moo tax kàddu yi muy sànniwanteeg yéen incha allah du ko guddal. dañoo bëgg su yëkkatee kàddoom ba pare rek. ñun ñëpp ñu àndandoo dem fële ca daja ba.

ñi ngi lay ñaan bi wajihillahi taala nga toog déglu te yàlla tax sëriñ bi génn gi sunu sëriñ bi génn gi mu génn yërëm njaboot rek moo tax mu génn ñi ngi leen di ñaan ngeen toog déglu ngeen jëriñoo kàddu yi nga xam ne moom lay génne ngeen jëriñoo ko ndax ku ne xam ni léegi heure élection ba jot jëfa la jëm ñi ngi leen ñaan ngeen wàcce kàddu yi li léegi war a suur yi ñi koy ñaan yéen ñëpp nag sëriñ bi ne yàlla nañu yàlla jàppale. waaye li ñu yëkkati. yàlla nañu ko yàlla nangul. te lii ñu yëkkati ñun ñëpp ñoo ko bokk. lislaam bi yëpp ñoo ko bokk. te kër gi kenn mënu koo génnee ci lislaam te lislaam nit mënu cee bokk. mara bu ne yàlla nañu yàlla jàppale rek ba yàlla bu yàlla tas yaakaar yi yàlla bu yàlla tas yaakaar yi ñëwuñu fii tey Tiwaawan ngir topp ci ab juddu wala askan déedéet li tax ñu ñëw fii mooy dañoo yaakaar ne rekk kër gi di Tiwaawan kërug yàlla te kërug yàlla jaamu yàlla yëpp a ko bokk li fi ne santul si santul Diop santul Ndiaye santuli santul Ndaw li fi ne yàlla la sant ku fi ñëw rekk ñëpp a ko bokk yàlla na yàlla def tawfiix yàlla nañu yàlla téyel boppam daje wuñ fii tamit pour bëgg waxtaane juddu maam alaaji Malick wala darajay maam alaaji Malick dañoo bëgg a rek li nga xam ne moo tax sunu borom yàlla binduñu te yàlla nee na wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa li yaabuduuni yàlla dafa bind wala yàlla dana binduma doom aadama ak jinne lu dul la tax ma bind leen mooy ñu jaamuma man yàlla jaamu gi yàllaa koy jëriñoo yàllaa koy jëriñoo ñun ñoo koy ñii jaamu ñooy jëriñoo jaamu gi a ah, mbokk yi a ah, ah? jaamu yàlla gi ñun ñii jaamu bi nee ñun ñii di jaamu buñ jaamoo ba pare ñoo koy jëriñoo yàlla soxlaalul kenn dara mbindeef yëpp bind bari li yàlla bind bari na lool li ci am doole ci lim bind bari na lool. te li ci am li ci yàlla bind la ci ëpp du xel la ñuy demee. kattan rek. ak doole. te mooy rab yi. waaye yàlla rab yàlla jox na leen luñ leen tàggatee. dox na doomu aadama lu mu tàggatee rab. ba diggante nit ak rab. nit ki mën cee mucc. waaye bu nit soxlaa rab yàlla jox na ko pexe bu mu dem bay tëral rab di ko rendi kon ñun ñii di doom aadama yi yàlla wutal ñu xel bëgg na ñun ñu xam ko pour ñu xam nan lañ koy jaamoo moo tax mu wax ci hadisul qudsi na na ngeen fexe ngeen xam ma balaa ngeen maa jaamu munu leen maa jaamu mukk te xamu leen ma man seen borom. loolu rek moom lañ bëgg a fàttalante. kenn ku ne boo delloo ca kër ya. boo wéetee ak sa bopp. ndax xam nga xam ndax yow mi jaamu yàlla nga. wala jaamukatu bakkan nga. wala jaamukatu seytaane nga. yooyu ñett rek nag la ñoo kenn moo moom. ak ñun ñëpp. muy sunu borom yàlla te yàlla sëriñ bi ne yàlla doomu aadama la tànn doyloo ko ci lépp loo xam ni moom la war a dox ci kaw suuf war ko fee def ak loo xam ne dañ ko war a moytu ci biir ak ci biti loolu rek mooy li ñu yëkkati waaye xam kuy Seydil Hadji Malick loolu taxu ñoo jóg tey ñu xam sunu bopp xam kan moo ñu bind ba mën a sàkku ngërëmam loolu rek tey moo ñu fi indi Tiwaawan yàlla nañu ci yàlla dimbale ñun ñëpp kenn ku ne war ngaa toog ak sa bopp balaa ngay sikki kenn wala ngay xas kenn nga laaj bala yàlla bindee ak tey lan nga fi def ndax li nga fi def ngir yow la wala li nga fi def pour yàlla la na defu fi pour yàlla lu waay def rek sa bopp man amila saalihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha sunu borom yàlla nee na man amila saalihan ku def lu baax fa li nafsihi yow yaa ko moomal sa bopp yow laa koy fay wa man asaa ku def safaan bayit fa alayha bu ëllëgee yaa koy wéetoo kenn du fi def lu baax yàlla jël di ko jox si daaj Malick déedéet wala mu koy jox rasulillahi déedéet wala mu jëlal ko boppam déedéet sa bopp rek te li ñu xam ba war cee tegtal nit ki pour nit ki mën a def lu baax ba tayit du alalu maam alaaji de alalu yàlla rek a mooy xam-xam xam-xam dañ ñu koo jox pour ñu jëriñoo ko joxuñ ñu xam-xam pour ñu di ko wane walla di ko waxtaane wala di yëngatu di wane sa bopp di jaayu loolu taxul xam-xam jóg xam-xam dafa jóg pour ñu jëriñoo ko yàlla nañu yàlla musal nag ca yàlla waxoon ñi nga xam ne dañoo yenu tawreet jàng ko ba pare te jëfewuñ ko dañoo mel ni rek mbaam dafa yenu sëf bu diis te bu ko sippee ñu door ko mu génn du ko jëfandikoo comme xam-xam moom lañuy xamee yàlla moom la xamee sunu bopp kenn du ne tey réer naa gisuma ku a gàggant li ñuy gàggantee ci jamono bari na lool ku jàngul arab it gaa yaa ngi bind ci français ñu ngi tafsir alquran ci langue yooyu muy bu espagnol bi muy anglais bi muy français bi boo ko xamul it boo demee ci ñu xam pour ñu jëriñ la boo demee ci alquran yàlla nee na wàcceewuma alquran yàlla lu dul mu teg leen ci yoon yàlla nañu ko yàlla defal moo tax ñun ñëpp ñoo war a dellu xam sunu boroom sëriñ bi nee na wax ji dafa mel ni daal nit ñi des nañ cee sawat te ñoo jàng fatiha ak salaatul fatiha ñu jóg ba deneen hmm. ñu yeggale sëñ Moussa mu ne ñu yeggale rek nit ñaa nit déglu ñi ci ginnaaw ña ca ginnaaw waaw ñooy dëgg la ñuy ñaan rek ñi ci ginnaaw ñu dal tuuti mara bu daaneel sëriñ bi nee na moom kàddu yi muy wax moomu ko de baayam Cheikh Alhaaji Abdou baax moomul kàddu yi maam Alhaaji Maali moomu ko li yàlla waxoon yonent bi ne ko li wax loo dara warul la ci lu dul jotal rek loolu rek moo ñu ci war waaye it forcé wuñu kenn li ñuy wax wax nañ ko in fokk ñu def ko loolu yi taxu ñoo jóg de wax daal moo ñu war bu ëllëgee bu ñu dajee la yonent bi waxoon ca addatul widaa naa ndax jotal naa li ma yàlla wax loo woon ñu ne ko ballaxta yaa rasulullaah wallaay jotal nga ko rek moo ñu indi ci wax ji yàlla na yàlla def tawfiq yàlla na yàlla def tawfiq yàlla bu yàlla tas benn yaakaar buñ delloo ca kër ya rek mara bu ne kenn ku nekk xoolaat boppam kenn ku ne ci ñun mën ngaa régler sa bopp la nga def sa digga teeg sa borom ci ngëm-ngëm wéetal yàlla ndax yaa nga ca wala nekkoo ca gëm gi lala ci yàlla sant mooy laab mooy julli mooy woor mooy natt asaka aji màkka takk soxna yooyu yëpp mu ngi ci biir alquran ndax yooya yaa nga ca boo ca nekkee ndax na ko yàlla bëgge wala wala déet yooyu yëpp dañ koo war a xam yàlla nañu yàlla jàppale nag yàlla buggul ko ko topp te xopp xamuloo ko nee na faarifuuni qabla an taabuduuni xam leen ma man yàlla lu jiitu ngeen may jaamu bu ngeen ma xamul naka nan ngeen may jaamoo kon yàlla nañu yàlla dimbale ziar général bi sëriñ Babacar si turandoom woote ko woon ngir lu rek ñu daje fi jaamu yàlla pour daje ak daje di waxtaane sunu diine di waxtaanee sunu bokk di waxtaanee sunu jàppoo loolu moo tax sëñ Babacar si ni mënatu ñoo dem. comme fii nag. te kër gi di Tiwaawan këru ñëpp. du këru askan. nañ woo nit ñi. ñun ñëpp ku ne ci yoon. ñu wax la ku nekkul ci yoon. xam ni nekkuloo ci yoon. moo tax yonent bi. bi wootee ba pare. fu mu dem. day wax ne. ndax jotal naa. ñu ne ko yaa rasulallahi. wallaay jotal nga. mat na ñun rek ñoo ci des moo indi wax ji ñuy wax lu yàlla bañ daal nañ fexe ba kenn bañ ñu caa gis la yàlla bëgg it buñ ca jóg yàlla nañ ci yàlla jàppale kenn ku ne ci ñun xam nga ndax yaa ngi julli wala julli woo kenn ku ne ci ñun xam nga ndax yaa ngi jàpp wala jàppuloo kenn ku ne ci ñun xam nga yaa ngi sangu farata wala da ngay xëppoo ndox rek kenn ku ne ci ñun xam na lool te yooyu bu amul julli du taxaw bu amul bu julli taxawul asaka du taxaw bu asaka taxawul koor du taxaw bu koor taxawul aj màkka du taxaw bu tax aj màkka taxawul daray lislaam du taxaw te loolu yëpp ci xam-xam rek la taabu de fa in lam taarifuu nii bu ngeen ma xamulee ana nan ngeen may jaamoo loolu rek moo indi wax ji ñun ñëpp bu ñu delloo rek kenn ku ne ci ñun xam na boppam. amul kenn ku réere boppam yaa ngi julli wala déet sëgg ak siggi du julli julli am na nuñ koy defee am na ay charte am na waxtu lépp a ngi fi kon ñuy fàttali nit ñi rek nañ leen ñu delluwaat ci seen borom. kuy jàpp kuy normalement njàpp lu wér. sëriñ bi ne doo mos a ñàkk dépense. sëriñ bi ne jàpp lu baax te wér ni ko sariya santaane ku koy def doo ñàkk mukk dépense ba di ko wëri maa yuridu llaahu li yajala aleykum min harajin yuridu li yutahhirakum wa li aleykum nee yàlla nee na laab bii ma leen sant defuma ko ngir teg leen coona dama koo def ngir ngeen set waaye sama xéewal gi ma gën di ko dolli ci yéen léegi ñiy laab nañ xool anamu su ko defee yàlla nañu yàlla defal tawfiq yàlla nañu yàlla defal tawfiq bu ñu demee daal buñ delloo daal ñu xoolaat suñu bopp nañ leen ñu xoolaat sunu bopp bu baax kenn ku ne ci ñun xam na boppam ñu taxaw fii mukk naan diw jugal def nangam déedéet balay caag ñu jóg taxaw wax nu ñuy jàppee nu ñuy sangoo farata nu ñuy tiime nu ñuy jullee waaye yooyu yëpp xat na te da ngeen war a dem ca mbooloo te da ngeen a war a dem nag ca mbooloo ma seet fa fekkee la ñuy waxtaanee moo gën nga ñëw Tiwaawan ba pare dellu te xamoo lu ñu wax ca mbooloo ma dafay mel ni kon jóg biñ jógoon amulul ñu njëriñ yàlla nañu yàlla defal tawfiix marabu ne buñ delloo ñu fonkaat sunu diine bu baax nañ leen ñu fonk laab bu baax nañ leen ñu fonk julli juróom bu baax weer wii di ñëw. jeexagul jeexagul. waaye yàlla daf koy répété. waaye yàlla da koy répété. pour ñu defaru pour ñu defaru. muy koor muy weeru koor. ñu bari jàpp nañ ne. ñu bari jàpp nañ ne. kooru daaw ga jeex na daaw gañ waroon jeex na. bis yaa jeex. bis moo jeex. waaye lañ ñu santoon waaye lañ ñu santoon ca bis moom. feeg ñu ngi fi. dañ koy moytu dañ ko war a moytu. lañ ñu ca digal lañ ñu ca war koo def ñu koo def. lañ ñu ca tere. ñu war koo bàyyi. ndax euh, kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquuna laallakum tattaquuna laallakum tattaquuna ñu bëri ah. ah du ngeen ma wuyu du ngeen ma wuyu ndax njaalo araam na ah, ah. ba ah Baye Njawar mais de nee na xaraam na aha ah njaalo njaalo njawar fu mu xaraame Baye Njawar sëriñ ne fu njaalo xaraame nee na laajaat na la ko lan mooy indi njaalo sëriñ bi ne luy indi njaalo lu koy waral mooy xool boo xoolee soo xoolee lan lala la xool di jural muuñ muuñ boo muuñee lu la muuñ may jural wax boo waxee lu la wax jay jural joxante rendez-vous boo joxante rendez-vous ngeen tase lu mu lay juree daje bu daje amee uh-huh. Uh-huh, lay xew fa lay xewee. waaye ku ne yafudu min waay waay yàlla ne dammal sa bët bul xool bul siggi te li ñuy ragal yàlla defe mooy bàyyi lu bon. dañoo foog na ragal yàlla mooy bàyyi lu bon déedéet. laa yakunu rajulu min almuttaqina xata yatruka ma la basa fihi ittiqaa mima fihi bas. mu ne nit ku duñu nekk ku ragal yàlla mukk lu dul dafa bàyyi la nga xam ne kenn terewu ko ngir moytu loo xam ne su ko defee luñ ko tere tàbbi ca mu def ko te du neex yàlla. mooy nga bàyyi luñ la terewul. mooy nga bàyyi luñ la terewul. ngir daw lu ca juddoo. ngir daw lu ca juddoo. lu ñu la tere. mayuñ kenn nga jege jaalo jege ga ñuy tere. yàlla nañu yàlla jàppale yàlla nañu yàlla jàppale. Euh, moom daal mënuñoo wax lépp moom daal sëriñ bi ne li ci xolam yëpp mënu ko wax. li ñu jàng tuuti rek. li ñu jàng tuuti rek. waaye daal waaye daal. Sénégal Sénégal. war nañoo dellu siwaat. war nañoo dellu siwaat. dellu bi te dellu siwaat bi. mu ngi aju ci daje. mu ngi aju ci daje. ak waxtaan ak waxtaan. dellu siwaat ci diine. dellu siwaat ci diine l'islam. nañ ko daan jàngee. nañ ko daan jàngee. ci daara yi ci daara yi ci maam Cheikhul Hadji Malick maam Khalifa Ababacar Sy maam El Hadji Mouhamadou Mansour maam El Hadji Mouhamadoul Habib sëñ Mansour borom daara yi mag ñu dem ak ñoom ñëpp wax nañu lépp ba mu leer ci biti. kon kenn mënatul leen a toppandoo kenn mënatul leen a toppandoo ci dara kon li fi des fi ne. mooy nañu jéem a defaraat sunu dund. bëccëg bi li dem. li dem ak li des. sëriñ bi ne lu des li dem ak li fees lu ci ëpp ci bëccëg bi ah du ngeen wuyu. du ngeen wuyu. wax ji mu ne li dem a ëpp. est que li dem dana dellusi ndax li xas a dem ci bëccëg bi dina dellu waat. kon dañuy gën a jege. kon dañuy gën a dege sowu jant. jant bu sow wala déet. kon itam dañuy gën a jege. kon dañuy gën a jege. te mu ngi ci yoon wi. te dee ngi ci yoon wi. te xamuñu kan la. ta xamuñu dee kañ la. fan la xamuñu fan la. yaag ñan la yaag ñan la. waajaloo ko te waajaloo ko. bis bu nekk rek. bis bu ne rek. nga bàyyi lañ la sant. nga bàyyi lañ la sant. di ñaan yàlla di ñaan yàlla. mu may la temps pour mu may la temps. ak dund ba ca kanam nga mën a fay julli. yooyu yëpp nañ ko bàyyi xel. yooyu yëpp sëriñ ne ñu bàyyiwaat ko xel. ñu delloo si waat réew mi fa mu nekkoon. ci jikko yu rafet yi. sunu maam Serigne Touba li mu wax sànq ak ay nit nee na wa qillatul xayaa'i maam Serigne Touba nee na néew kersa ak kersa goo xam ne bareetul ci jamono bokk na ci li yàq jamono. mu ne nag li gën a yéeme mooy jigéen ñi fi mu ne ñoo gën a néew ñëpp kersa. jigéen ñi amatuñ kersa. ak tamit ndaw yi léegi jamono maam Serigne Touba nee na kenn amatu ci kersa. du ci xale du ci kenn. te booba ba koy wax. te booba bi ko maam Cheikhul Khadim di wax. defe naa ñi nekk fii ndem am na ku ci judd bariwul. ku fekkee 27. yéen ñii fi toog kan moo fi fekkee 1927. ah du ngeen ma wuyu. du ngeen ma te ki ko wax 27 la làqu moom. yàlla nañu yàlla defal tawfiq. yàlla nañu yàlla defal tawfiq. mara bu ne buñ delloo tamit boru julli. yi paase te ñu yore ko. te mu paase ay at. nañ ko julli fay ko. sunu maam Serigne Touba. nee na. ku bàyyi benn farata. yéex koo julli. ba faatu. buñ la boo dee buñ la yóbbu jàkka ja. buñ la sangee jàkka ja. buñ la fa sangee. buñ la fa jullee. bu yooy yëpp paree. buñ la suul ca sagu jullit nañ la yóbbu ci àll ba suul la te buñ lay suul it lay sa yuqbalu buñ la jublul xibla na wan ginnaaw penku ngir benn waxtu woo faat ta tay ko kon daal buñu delloo ñu góor góorgóorlu ñu bokkandoo ñun ñëpp ànd jàng fatiha yàlla nañu yàlla defaral boppam yàlla nañu yàlla defaral boppam ku bëgg nag yàlla defaral la sa mbir da ngay jéem a defaru. da ngay jéem a defaru. mu fekk la ca. mu fekk la ca. defar la ca. bu dee wërsëg ngay wut. da nga koy tàmbali. koy tàmbali. di ko liggéey di ko liggéey. mu fekk la ca moom yàlla. loo ne rek. yàlla fekk la ca. lu dul la bon. yàlla. du fekk kenn kuy def lu bon. mu di ko ca jàppale. waaye booy jéem lu baax rek. mu dogaale la. yàlla nañu ko yàlla defal. bu ñu delloo rek ñu delluwaat xel xoolaat sunu bopp xoolaat sunu ay bor xoolaat xàq yi ñu yoreel jaamu yàlla yi ñu delloo xàq yooyu xool fan lañu sunu borom yàlla jaarloo ndax ña fa wala ñekkuñu fa yooyu yëpp ñu xoolaat ko xoolaat sunuy bori julli xoolaat aj màkka xoolaat weeru koor xoolaat génnee asaka xoolaat sëy yooyu yëpp ñu bàyyi ci xel. Njawar bàyyi Njawar. kuy sa goro. sëriñ bi nee na yow kuy sa goro. nga nee na yàlla. yàllaay goro wax na dëgg nee na wax nga dëgg tey de masala mi moom dégg nga ko yàllaay goro dëgg. yàlla ku dul yàlla du sëriñ bi nee ku yàlla doo goro. dañ laa dénkoon rek. yàlla am jaam bu ko soxla. yàlla am jaam bu ko soxla. bu soxla soxna. bu soxla soxna. ak bu soxla borom kër. ak beneen jaam bu jigéen bu soxla borom kër. yàlla di leen boole. yàlla di leen boole. bi fardillaahi. moo tax bu ñuy takk sëy dañ naan bi fardillaahi ca farata sunu borom yàlla. waaye duñ ne bi fardi njawar sàmb. wala bi fardi sëriñ bay. farata si yàlla. ak sunna sayyiduna Muhammad ñu ne jama allahu ñaar ñi bëggante yàllaa leen boole jama allahu shamlahuma wa ataaba yal na yàlla sellal naslahuma luñ ci am ci njaboot yal na yàlla barkeelal képp kenn ci ñaari way dencante ala saahibihi ci tànn gim tànn moroomam di ànd ak moom kon nag boo seetloo lépp yàlla la njawar dañ laa dénkoon rek joxe nga jox nga ko yàlla génn ca ki ñu dénk it jox nañ la ki la dénk mënoo ko rëcc mënoo ko rëcc ci xalaat lay tàmbalee ci xalaat lay moom yàlla yàlla du bàyyi ba nga wax yàlla du bàyyi ba nga wax muy soog di xam muy doog di xam li nga def déedéet fa ngay xalaatee la la yàlla di teree bu dee safaan la loo xalaat loo bëgg xalaat wala nga xalaat ko. wala say cër yi mu bind. wala say yi mu bind. yëngu jëm ca yëngu jëm ca. te neexu leen force la. yaa ko forcé ñoom ñëpp dañuy yuuxu tàllal loxo yàlla pour mu dimbale leen. ba li nga bëgg bañ a am. boo déggee lekk lekk ba pare. boo déggee lekk ba pare. di ko moyee yàlla. lekk ga dana naan. lekk gi ci sa biir bi booy mooy yàlla dana naan. laanaka yàlla na la yàlla rëbb. yaadu wallahi. yow noonu yàlla bii waaja mooy yàlla. yaa ngi lekk wërsëgu yàlla. wala wala tu addi faraida. te nangu wuloo jooxe ay farataam yi mu teg ci sa kaw. topp ko par benn ko par benn benn moom ñam wi di la rëbb. ba mbub mi sax. boo ko dee sol. boo ko dee sol. boo ko dee sol. daagoo ko. pour ñu ne la mbub mi rafet na. mbub mi da lay rëbb. boo dee lekk boo dee lekk. di ca jëlee kattan di ca jëlee kattan. doo jaamu yàlla doo jaamu yàlla. lekk gi da lay rëbb foofu. danaan la yàlla na la yàlla rëbb. yow noonu yàlla bii. yaa ngi lekk wërsëgu sunu borom. te nanguwoo jooxe ay farataam. yooyu yëpp marabu nee buñ delloo ñu bàyyi ci xel. waxuñu nag kàddu yii pour tiital kenn. dañoo bëgg rek. buñ delloo ca kër ya. kenn ku ne ci ñun toog ak sa bopp laaj sa bopp say jaar-jaar fan moo ci jëm ci yàlla wala lu ci jëmul ci yàlla loolu bu ñu demee ñun ñëpp ku ne laaj ko boppam ba bu bu ñu dajee fi faat fii yàlla nañu yàlla may dund kenn ku ne mën a santaat yàlla ci loolu yàlla nañu yàlla defal jàmm ku bàyyi woon nit muy mbokk muy dëkkandoo muy xarit boo delloo maa ngi lay ñaan man Serigne Babacar ngir jëmmi rasulillah ngir jëmmi yàlla mi ñu bind nga dellu ca ka nga bawoon jox ko loxo demal ba waaxu ba ca këram nga fekk ko fa wutal gura boo demee jox ko loxo na ko maa ngi jéggalu li doxoon sama digganteeg yow ngeen ma ndax di ngeen ko ko may bul xool maa ko tooñ mara bu ne wala moo ma tooñ demal fekki ko rek jog rek jóg waaxu dem fekki ko. la nga cay am la nga cay am ci yool. moom mi toog moom mi toog. du ko am mukk wallaahi ko ca am mukk. est-ce que di ngeen ma ko may. est-ce que di ngeen ko ko may. wóor na wóor na. kuy sunu seede. kan mooy sunu seede man a yéen. waaye bu leen ko royee ci kër gi nag. waaye nag bu leen royee ñàkk ci kër gi de. même bu fekkee ni ñàkk ànd gi. même bu fekkee ñàkk ànd gi. ci li xew ci kër gi. ci xew ci kër gi. ci la soqi ko ci la soqi boo demee boo demee yow. summeeku ca ba set. fekk ki nga bàyyi woon. te yàlla boole leen. nga jox ko loxo. te dañu wax ni ar te dañu wax ne ar risqu. mooy la nga jëriñoo ci sa dund. waaye la nga joxe. wërsëgu jàmbur la wu jaar ci sa loxo. waaye nekkuloon sa wërsëg. bu ko defee nag. mbokk yi wax jaa ngi bëgg a bari te mu ngi bëgg a guddi fa tabaarakallaahu yàlla nañu yàlla wanalewaat waaye lépp nag nekk yokkute yàlla nee na bu ci kenn tiit yàlla du Serigne Babacar si Abdou Serigne Babacar si Abdou yi du yàlla mukk yàlla daa bëgg rek ku ñëw fekk fi sa jëf sa liggéey lépp sell